Assalamualaikum, wa Senegal. Assalamualaikum wa Tivaouane eh, maa ngi tudd Gora Ka man ma andak ak samay frère ak samay ay sœur yi nga xamante ni ñoom ginau. ma féete ñu nekkoon ay employé ci ben projet projet bu tudd Tiawon ville verte Tiawon ville verte nak kiko initié moo Demba Diop l'actuel maire de la ville de Tiawon. donc Diop avait l'idée de créer un projet nommer Tivaouane Ville Verte pour xamante ni idée maîtresse bi refaire de Tiawan une ville verte parce que gis na ni Tivaouane garab mi fi commencé euh, manquer yenn xétu garab yi muni pourquoi pas mu reboiser wat ay garab yo xamanteni ni ci histoire yu Tivaouane am na lu mu fi marqué donc bi muy lolu amé mu def appel aux jeunes jeunes yi dégg appel bi ñew mu waxtaan ak ñom defal leen formation théorique euh, recruter leen proposer leen benn salaire donc bi loolu noonu nous ñu le projet bi di liggéey projet bi mi ngi commencé au mois de au mois de mars 2021. donc bi ñuy liggéey ci début projet bi gai yi respecté woon nañ ak yelleefu ñi nga xamante ni ñoo di employé parce que Tivaouane nekkoon na dëkk bo xamante ni ay jeunes dañ fait bari yo xamanteni kenn ku nek mën ne di wut donc mi loolu ñu projet parce que li leen motivés, motivé. motiver fait leen ñor donc lepp les def rek pour mu jëm kanam pour mu baax donc dañ ci wara a euh bi loolu amé ñu ñu salaire ñu accepter ñu commencé di liguey bi ñi liguey ci début bi respecté nañu donc, ñu fay suñu salaire di communiquer ak ñun Même sax en personne na souvent convoqué une réunion ñun administration ñu tok waxtaan xol li nga xamanteni mom moy gëna jëmele projet bi ci kanam nous bu ko défé suñu convoquer dañuy ñëw ñu tok échanger su ko ñu tirer ci ay points yo xamanteni wara appliquer projet bi y a eu des des des des promesses tenues am moom man taxaw di xamal nan ni man képp ak man ñoon dañuy gis yow ben avancé ñun ko ah d'accord ñun de lolu moo ñu gënal mu ne nag li ngeen di def mom moy mom sax proposé mënuñu vous allez vous allez vous constituer en groupe ngeen créer benn projet bo xamanteni man en personne dina ko financer lolu nono bimu ko waxé ñu tok en réunion ñu jël ñu jël acte bi ñu demee ba ko concrétiser mu set wicc loolu ba tey fi may ak yéen dara amu ci en plus de cela travailleurs yi doon nañ dund ay conditions yoo xamante ne nii c'est des conditions extrêmes parce que mënoo di ay ndaw nga taxaw teniraat beneen promesse parce que su fekkente ni euh, travailleurs dañuy nek ci ay conditions yo xamanteni c'est des conditions déplorables ñun dañuy adresser ki nga xamanteni ni mom le confier projet bi muy Mansour Sy Mansour message bi donc bi muy yëg loolu mu ni ah yegg na seen ñaxtu donc je vais mettre à votre disposition ben auto bo xamanteni ni nii travailleurs yi nga xamanteni dañuy juggé fu sori dina def ramassage bi di len jël di len indi parce que da ngay gis ko xamanteni ne employé boo xamante pour liguer si rek wala pour se rendre dans son lieu de travail il va faire deux ou trois kilomètres ñenn ñi dañuy dox ñi nga xamante am nañ ko di jël Jakarta Té lolu nonu par rapport ak salaire bi boko ci génnee du la dese dara Amna ño ñoo d'ailleurs sur la place foofu lañuy ndéké. donc yoy yep mu nekk ay situation yo xamante c'est des situations très très très difficiles des situations très très très déplorables mu déma dem ba ben moment euh, mu copte ay jeunes. ci ñun yoo xamante ni daf leen a gëmal ni ñu Tivaouane moom moo leen ñor alors qu'en réalité derrière tout ça dafa am benn aspect politique bu ci am boo xamante ni nii la majeure partie d'entre nous xamuñu ko woon parce que ay jeunes lañ ay ndaw lañ yu ñu woo ci liggéey am na loo xamante ni tant que teguñ ci suñu bët rek am na ñoo xamante ni mënuñu gëm loolu quoi mais ñi nga xamante ni am nañ xel di xalaat am na luñ jot comprendre donc jeunes yooyu noonu bi mu leen coptee dugal leen ci biir. ñuy liggéey dafa dem ba mu yàgg ñu nekk ay militants Demba Diop Sy di militer ci ci ci ci partem wala mouvement am muy CPJE donc ñooñu nag dafa dem ba ci biir mu amaan ñoo xamante ni également dañ leen a jël dugalal leen ci biir administration bi ñi nga xamante ne ñoo daan taxaw di défendre employés yi di kaas seen ay doléance ñooñu bi ñu leen jógee intégré leen ci biir euh, administration bi dañoo dem ba kenn déggatu leen ñuy wax d'ailleurs sax dañu dem ba nekk mën naa adversaire ak ñi nga xamanteni ñoo di employé ñu changer complètement discours ñun nak ku ñu xam-xam ni ñun projet bi du début jusqu'à maintenant fañ ci nekkoon ba légui jugé jógewuñu fa conviction ak principe yi nga xamanteni ni ci moom lañ amone ci projet bi ak clairvoyance bi nga xamanteni mom lañ duggé won ci projet bi lolu ba légui jugul ci ñun motax ñuy taxaw di def set di ñuy ñuy parfois ñuy ñuy ñuy def taxaw setlu taxaw setlu bi nak daf ci bokk employé dañuy liggéey pendant des mois yo xamanteni ni sen salaire yi pour ñu jot ci tout un problème ay retard de salaire yu grave moy am retard de salaire yu ñuy cumuler ay mois di ko retardé yu grave moy am dem na sax ba ci employé bu ñu tollo ci événement muy korité wala tabaski wala gàmmu quelque chose comme ça dañuy xaar di xalaat ni ah weer bi kat dee job Diop si dinañu fay suñu salaire bu ko defee nous yobbu suñu kër jox parce que dans le projet il y a eu des pères de famille il y a eu des mères de famille amna ño xamanteni c'est des orphelins de père et de mère amna ño xamanteni ay veuves donc ñoo ñep li nga xamanteni ni mom lañuy yobbu kër dañ ko projet bi donc bi lol di am ñuy tok di dund yaakar tam jël yeneen risque yo xamanteni nous ni projet bi dina leen assurer loolu moom mooy dañuy dem jël ay marchandises Nous jàmbur di un petit commerce commerce boo xamante ni marchandise yooyu mën naa ni ci seen biir surtout ci jigéen ñi ci lañ koy lebalante labalante boobu noonu su fekkente ni nii euh, nit ki dafay xaar weer bi dee nga fay ko ko mu dem fay ki nga xamante ni moom mooy grossiste bi koy jox produit bi également ki nga xamante ni dafa jël lépp muy employé di xaar weer bi dee nga fay ko moom tam mu fay nga xamante ni nii moom mooy commerçante bi wala commerçant bi donc boo ko faussé da ngay benn chaîne boo xamante ni dafay metti te daf ñu gëmloo ni woon kuy liggéey ci man ku nekk da ngay gis ay avancement ci ñun donc loolu bi mu amee nag ñun xam nañ ni lii nii mënu ci am benn avancement parce que y a eu des personnes yoo xamante ni elles sont très très très endettées à cause de Demba Diop parce que dañuy jël ay xaalisu jàmbur wala ñu jël marchandise yu jàmbur di yaakaar ne bu weer bi deewee dinañ leen fay ñu mën a rembourser loolu noonu donc euh, weer bi dafay dee Diop Sy non seulement du fay administration bi nga xamanteni parce que dina ñëw fofu ci administration bo dégg ñuy wax administration parce que projet bi Tivaouane Ville Verte le tudd donc pour ñu organiser ko il va falloir que ñu créer ben cadre cadre bi nak dañ ñi no entreprise lay doon entreprise bi légui dañ koy tuddé Malika Service donc Malika Service mom moy porter projet bi ci bir Malika Service ci lañ créer ben ben ben administration bo xamanteni euh dont source elle est le directeur général le directeur général de l'entreprise. Demba Diop le président directeur général donc nous sommes intermédiaire euh, avec Demba Diop si Mansour vous compris euh, Mansour si su fekkente ni nii am nañ ni nii nañu wala gis luy avancer le projet bi mom lañuy gis mom la waxal mom gis waxal ba récemment ba euh, retard de salaire yi mi ngi perdurer continuer amna na ñoo d'ailleurs projet bi yag ngeen di dégg ñu naan 300 volontaires la won ci début bi loolu Tivaouane gi yëpp xam nañ ko 300 volontaires mais au fur et à mesure ñuy avancer nombre bi di gën a di gën a réduire di gën a restreint parce que am na ñoo xamante ni dañuy dem ba condition de travail arrangé wu leen ñii c'est des élèves dañuy jàngi ñii c'est des étudiants ñii dañuy gis leneen loo xamante ni moom moo gën lii mais ñoom dans leur communication pour montrer l'aspect politique bi nga xamante ni projet bi daf ko am dans leur communication da ngay dégg ñu naan 100 volontaires 300 volontaires projet bi au fur et à mesure muy avancer na do ñii ko lolu nek un fait ni euh, tu ko bi ci wax fait la oui non promesse bi je a cité rek financement de projet Lolu moo ci a promesse bi euh, promesse bu bu comprendre

donc loolu noonu c'est un fait li ñuy wax nag Tivaouane gépp xam nañ ko ñun dañoo nekkoon au cœur de l'acte jusqu'à maintenant lépp xam nañ ko luñ ci dund lépp xam nañ ko nekkuñu fi di créer ay histoire monter des des des des histoires li ñuy wax c'est des faits réels yoo xamante ni yëpp teg nañ ci seen bët parce que ne dans les grandes artères de Tivaouane da ngay gis ay jeunes yoo xamante ni ñi ngi ñi ngi trouver di gas di planter di defaraat di samplan rendre à Tivaouane sa verdure loolu la woon parce que projet bi biñ koy wax loolu la woon planter entretenir des arbres pour pour rendre la la pour rendre loolu moom moo nekkoon idée bi mais bu ñu demee ba ci biir gis nañ ni am na benn aspect politique bu ci commencé di am am na aspect politique bu ci commencé di am boo xamante ni ñu bëri ci ñun xamuñu ko woon te moment yooyu noonu pour ñu ñu regroupé wu wala ngay expliquer ñenn ñi ñuy comprendre dafa nekkoon lu jafe dafa nekkoon lu metti parce que jeunes yi boobu liggéey rek lañ gisoon loolu tamit danga leen loolu nangul tey jii yéen ñu taxaw fii lan ngeen bëgg lan ngeen xaar si ki nga xamante ni mooy seen interlocuteur waaw d' accord loolu noonu euh, damay bëgg a ma si ñëw ma procédure yi nga xamante ci lañ jaar ba egsi fii nii sànq maa ngi wax bi retard de salaire commencé am on s' est retrouvé ñu constitué en collectif bi ñu demee ñu ne ah ñu waxtaan ñu ne gars yi salaire yi kat mi ngi tardé te ñun jusqu' présent dañ dañu am administration dafa am ñoo xamante ne ñii ñoom gérer Eh, bi ñu dajaloo ñu ni ah gaay salaire kan mi ngi tàdd te li mënatul continuer fi ay borom kër ñoo fi nekk ay responsable ñoo fi nekk donc nit ki boo koy bu wër déwé da nga ko wara fay salaire légui biñu waxtané ñu trouver un terrain d'entente ñu ni ah li gënoon kan moy ñu dem gis ki nga xamanteni mom lañu la moy le directeur général muy Mansour Sy bi ñu demee ñu toog waxtaan ak mom défal ko point bi défal ko situation bi défal ko situation également employé mom en personne lu mu ñu waxoon pour wax la promesse non tenue yi nga xamanteni ni jusqu'au moment où je vous parle mom lañuy ñuy dund mënuñu man de wax deug yalla comprendre na len dégg na également sen ñaxtu damay am sax kersa nek sur le terrain parce que xaw luma len di wax quelque chose comme ça ñu ni ok mënu mënuñu d'ailleurs mom moñu defal ben proposition mënuñu suma sañon da ngeen di def ben préavis de grève bo xamanteni ni da ngeen kay duggal man à mon niveau dina ko appuyer su ko defee Diop Sy mën a génn fay vous avez compris mu tegalaat ñu ci ni également lu mënti xew je serai à vos côtés fi duñ ci dàq kenn duñ ci wañi kenn Mansour Sy mom moñu wax li ni Mansour Sy en personne moñu xamalon nit ñi biñu toggé di waxtaan ak mom mënuñu de toute façon loolu lu mënti def ak lu mënti xew duñu ñu dàq kenn duñ ci wañi kenn duñu ñu dagg salaire kenn moom moo ñu waxoon lii bi le même jour man ma défar privé de grève bi mo nekk ni ma envoyé ko ko c'était le 3 avril ma envoyé Koko. m'a notifié ma ni jot remonté ko ci kaw Je si jot ci bi ci si quelques jours mu commencé génn xaalis di fay mais ci biir préavis bi dafa amone deux points très importants yo xamanteni dañ ko cité won bi ci ñëk mom moy paiement intégral des salaires cinq mois d'arrière de salaire ñu fay ñuko benen bi ci dess mom moy proposition de signature de contrat suivant les exigences du projet loolu yëpp gis na ko moo nekkoon sunu ay revendication par rapport ak li nga xamante ne moo di préavis de grève bi léegi bu mu dikkee au lieu mu fay ñu sunu cinq mois toog waxtaan ak ñun ci condition de travail bu fekkee ne daf ñuy proposer contrat wala li nga xamante ni moom la ñu mën a wax mu leer suñu ñu dégg ko deful loolu daf ñu woo mu ñëw mu ne ah deux mois lañ leen di fay gars comme xamoon nañ ni nit ñi nekkoon nañ ci ay situation yu difficile yoo xamante ni soxla woon nañ xaalis parce que kuy liggéey ku nekk ay soxla moo tax ngay liggéey ñu ni ah amul problème ne leen jël sunu deux mois continuer di laaj li nga xamante moy mooy sunu trois mois quelques jours plus tard ma intro ñu intro ñu waxtanat déggo ci ay cadeau, introduire parce que collectif lañ yoroon introduiraat benen benen benen comment dire benen non benen note d'information bo xamante dañ doon def le point sur la situation ci préavis de grève bi ñu xamal nak opinion bi ni leen. Nous devons revendiquer nous faisons mois d'arrière de salaire en plus nous devons ñu une proposition de signature de contrat mais en réalité nous avons dikkee mois de salaire contrat est waxuñu nous Nous def des informations Nous également sous peu introduire préavis de grève c'est pour réclamer à Dembo Diop mois d'arrière de salaire préavis de grève c'était le 18 avril

moy atteindre na employé ne ko ñun attends nous sommes dignes dikk ñu fi di taxawalu wala ñuy ñaan kenn wala ñuy taxaw buntu kër kenn liggéey lié ne exigence yi nga ko mais waray wax waroo comme nag da nga menacé comme def yow ni menace moom sa arme nga renvoyé nous sommes prêts pare nañ ñun pour nga ñu. paré nañ tay ji pour nga dakk ñu bu la nexé nel suba bu len liggéey ci ñun paré nañ mais ñun li nga xamanteni moy suñu droit muy suñu salaire yi ni suñu mois d'arrière de salaire yi ni dañ kay laaj ci lolu la génné ben note d'information pour wan wa tiawon yépp ni Mansour ci li la tontu employé yi li la tontu employé yi et ci kaw lolu nonu ci lañ dem sax ba déggo ñu ni ah gaay nous allons tenir une manifestation commencer di ci dox di ci wax mu am ay avancé trop bimu ba ci biir ñu ne jëm arrangé wu len ñu tok dajalo kenn ku intervenir na façon dit, bu na ñu wax pour wéñ suñu loxo li ñu japp ñu ci suñu len ñet du ci dal li ñu faut que mal bi nga xamanteni employé loolu il faut mu rétablir ko wala Demba job si mu rétablir ko bi loolu mu am ay intermédiaires yu ci am xam nga médiation bi et tout ça moom en personne mu nangoo dikk toog ak ñun te te avant moo toog ak ñun li mu waxoon ni daf ko retiré taxaw devant tout le monde defaat beneen vocal jéggalu employé daan ni dafa juum ni mu wax waxee warul woon waxee noonu te effectivement dafa juum ñi ko jege di ko wax dëgg ñëpp loolu lañ ko wax effectivement dafa juum. nga ko léegi xanaa soo mënee tënk rek après nga ñëw si li ngeen bëgg ak soo leen amul jéem a ko njëriñ. waaw d' accord eh, ci kaw loolu bi mu amee cinq mois d' arriéré de salaire la la lañ doon laaj ñu jox ñu deux mu des trois ñu war ñu fay suñu trois mois d' arriéré de salaire mënuñu Mansour Sy le douze prochain le douze prochain mooy c' était le douze euh, avril mënuñu le douze incha allah dinañ leen fay seen mois d' arriéré de salaire yi teg loolu suñu loxo ñu ne ah bu fekkene ni fayna ça va on va continuer à travailler ñu continuer di liggéey ba le 12 jot que ko gisuñu ko le téléphone mu ma ah d'accord le 12 la leen mais vous avez une dérogation de 5 jours d'accord. d'accord. y a jël message bi transfert ko employé yi quelques jours plus tard mu wowat ñu fay ñu li nga xamanteni ni parce que le 12 bu on est à 4 mois de de de Il arriéré de salaire fay ñu 2 mois d'arrière de salaire ba paré ci vendredi prochain moy comme demb dina fay ñi ci dess mu semaine prochaine semaine prochaine pour lan jéem a xelu employé yi jéem jaxassé ñi di mais ñun on est assez outillé on est assez intelligent pour xam li nga nous ni faire. parce que nit ki bu dee vendredi <laughs> mais pourquoi pas nga ba vendredi nga

projet bi bu doon daf koy politiquer daf ko waroon a teel a wax mu leer daf ko waroon a teel a wax mu leer parce que rencontre yi nii avant muy nekk maire non dañ naan rencontré de di dajeeg moom di toog di waxtaan di échanger mais bu mu demee ba mu xam ni affaire yi dafa commencé favorable ci côté am il s'est retiré de boobu ba léegi fay ba fi ñuy waxee ak yow nii gisuñu Diop Sy dégguñu ko waxul ñun communiqué wul. il s'est retiré parce que moom mooy li ma bëggoon ci jeunes yi am naa ko mooy utiliser leen ba nekk au sommet de la municipalité ñi koy xamal nag ni ko ñun. loolu la yàlla def nangul nañ la ko mënuñu ci dara ndogalu yàlla suñu borom la peut-être am na ci ñoo xamante ne ay ndaw yu nekkoon fii ci seen loxo tam la ko jaaralee mais nit ki bu fekkee ne da nga ko dàq wala nga yaa xam la situation dans la dans laquelle tu l'as mis li nga li nga xamante ne nii moom nga war a def moom mooy mois d'arriéré de salem wala lépp loo xamante ne mooy droit am la waaw mais nga jox ko ko quoi ngeen ñaanalante nga dem mu dem loolu mooy yoon loolu mooy logique loolu moy yon loolu moy logique mais nit mënoko renvoyer mënoko dakk ba pare wala nga wañi ko ba pare té xaalisam mu te kërëm teud wala muy wala muy muy taxawal wala mu tok dila la seetaan duñ ko def duñ ko def de duñ ko def té dañuy continuer duñu la suñu 2 mois d'arrière de salaire à Demba Diop si mom moñ ko yoreel yoreel ko employé Tivaouane Ville Verte ñi mu jël ñuy liggéey ñi mu la ko yoreel nak du ñun rek ñepp la ko yoreel ñepp la ko yoreel lu ñu bëgg daal lool la c'est c'est clair et simple Demba job si nañu fay suñu 2 mois d'arrière de salaire yi nga xamanteni mo dox suñu diggante ak ñom parce que damay xamal wa euh, population tiwa ni leen nit ki mëno ko amel xaaliss ba paré ngay génn ci dëkk bi ndaje bu nekk nga dem fa di génn xaaliss di maye di joxe ay financement di joxe ay enveloppe financière ci yenn yenn yenn yenn yenn événement yi quelque chose comme ça ba paré jël ay xaalissu nit teud ci war leen ko fay génn di def su euh, di def sunna bàyyi farata loolu mënul nekk képp koo xamante ne Diop Sy génn na fii nii may la xaalis wala mu ñëw ci sa événement génn enveloppe financière teg sur la table xam leen ni employé Tivaouane Ville Verte Demba Diop Sy yore na leen deux mois d'arriérés de salaire yoo xamante ni boobu ba léegi ñu ngi ci topp di daw na génn ñëw fay leen ko bala moo def leneen donc kàddu gu mujj gi moom mooy maa ngi sant collectif bi yëpp. employé yëpp ma kenn. par rapport ak collectif bi yéen ñi pour le moment mënuñu mënaguñu xam nombre bi parce que am na ci ñoo xamante ni ñu bëri ci ñun dañoo xamanteegul am na ñoo xamante ne dañ leen a copte leen ci biir am na xamante ne dañ leen a génne mais ñoo ngi def benn liggéey ci suuf pour gën a retrouver wu ñun ñi nga xamante ne ñun ñëpp dañoo wàññi ñu retrouver wu on va organiser ñu xam ñun ñaata lañ ak tam ci euh, lance bi nga xamante ni foofu lañ nekk naka lañ ciy demee. parce que nak buñu fayul suñu deux mois derrière de salaire yi nii compté wuñ yam fi dé dinañ passer à la vitesse supérieure passer à la vitesse supérieure mom moy buñu ñu def fi marche manifestation au niveau de Tiawan, avec l'autorisation du préfet dinañ ko def buñu ñu wo également presse nationale bi dinañ ñëw fi ñu xamal Demba job ci li nga xamante mom lay dund ak employé Tivaouane ville verte parce que li du ñun ñi mu dàq rek la koy dundal même ñi mu jëlaat ñuy liggéey ni yaakaar ni les conditions vont vont vont changer ñoom daf ko dund ak ñoom daf leen ko ameel donc daal mbir mi loolu la woon maa leen di sant di leen gërëm merci beaucoup